nuyo bi nag li ko waral lépp mooy dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ni <clears throat> ba mu koy sanc booba tubaab yaa ngi fi sanc ko ndax lislaam moo taxoon mu sanc ko am yu mu fi bañ am yu mu fi bëgg dëkk bi nag day dëkkub yërmande boo xam bi ni sëñ bi ñëpp la fi woo waaye ci ko woote bi mu fi woo ñëpp nag da ko woote ci siraatal mustaqim waaye nuy dem ba gis ni dëkk bi mu ngi bëgg a mel ni yeneen i dëkk te yëmut ak yeneen i dëkk ndax euh, boo gisee woote bii sëriñ bi di ko wax mooy démb ku xool ci Lamp Fall FM ak yeneen tele yi mel ni ki moom euh, sëriñ Bassa ngi toog di wax di joxe ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi digle ci dëkk bi sa bëgg nu defal ko ko léegi nag li ci am solo mooy ñii nga xam ne bi dañuy jabootu maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi leen di woo am di jaarale kàddoom ci sëriñ Cheikh Ndiaye ku yaakaar Cheikh Ibra ku ne na nga xam ne am na liggéey boo xam ne bi sëñ bi joxe na ko ci Touba ci dëkk bi la ca jëkk nag mooy gaar bi nga xam ne fu fu fi waay mën a ne ci dëkk bi ak senegaal ak bitim réew dégg nga xew-xew ya fay xew te loolu yëlloowul ak Touba loole nag la sëriñ bi bëgg nu jëlee ko fa ak yeneen yi demee noonu te nekk ci quartier yi nekk ci biir Touba te mel ni gaar ba ci ay ay ay ay mbir ndax di fa jëfandikoo yoo xam ne sëriñ bi soxlawu ko ndax loolu rek moo taxoon sëriñ Abdou Lahad bi mu toogee mu ni lii xam na ci tànk tuwéyam li yëllawul ak dëkk bi fas na yéene mu jóge fi loolu demoon na ba dem yërmaande sëriñ bi nag ju ëpp tax na nit ñi defee ni dëkk bi day seen maam da koo sanc wala seen baay da ko sant wala bi ko sëriñ bi sanc maam yi kenn ànd na ak moom loo loolu yërmaande bi rek moo tax ñooñu di bëgg a doxale noonu sëriñ bi rek nee na loolu du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ndax li tax ñu bàyyi ko fi moom xam na ko seetal dëkk bi ci melokaan wi sëriñ bi bëgg loolu moo tax ñu bàyyi ko fi yërmande ji nag mooy ku dikk mën ngaa dëkk ndax ku dikk mën ngaa dëkk ndax sëriñ bi moo woo ñëpp te bëgg a sooy ñëpp a tax moo woo ñëpp ci dëkkam bii léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na na ko ñëpp wuy si ajjuma fas nañ yéene jublu ci liggéey bi tàmbali ko liggéey bi nag yemul rek ci gaar bu ndaw ndax dañoo ci gaar bi dañoo bëgg bu noppee bu nu noppee ci loolu feneen fu ñu joxoon joxoñ itam nu jublu foofa fas yéene la fa sëriñ bi bëgg na mu ko bëggee nu defee ko nii loolu mooy woote bi sëriñ bi woote euh, démb nag sëñ euh, sëñ Basirou am na kàddu yum ci sànni yoo xam ni def naa ni ñu bari dégg nañu ko léegi nag jamatug Cheikh Ibrahim ñoom na na ngeen xam ni na mel ni carrière la ñu woote na mel ni xel koom la ñu woote na ñëpp wuy si te kenn kuy ñëw ku ne na nga ànd ak sa jëfandikukaay yi nga xam ne moom lañ fi jëfandikoo ndax kat dana am toj dana am déjji dana am lu ngeen lu ñu foog ne du fa am rek dana fa lu dul jàmm rek lañ lañ fa soxla nag soxlawuñ fa lu dul jàmm bu bu bu mbooloo mi dajee daal fu sëriñ bi joxoñ ni nii la ko bëggee nan ko defee noonu sëriñ bi nag dafa waxoon ni bëggul ko gaañ kenn bëggul ko dóor kenn bëggul ko xaawi sutura loolu mu loolu mu bëggit noonu noonu lan fas yéene defale ko ko nii waaye li nu li mu bëgg ci dëkk bi daal fas nañ yéene ni mu ko bëggee nu defe ko nii loolu mooy woote bi nga xam ne moo taxoon sëriñ bi woote tey jii euh, ñi nga xam ne bii ni dañu faa ne nag te nga xam ne dañ faa yori bagage te bokk ci dëkk bi sëriñ bi nee na nañu teel a fagaru génne seeni i bagage ndax may nañ leen euh, euh, diggante boo xam ne bii wax dëgg yàlla tuxal say say say bagage yóbbu ko fi barab xaj na fi ndax feeg àjjuma lu ne xaj na fi ku ko ku ko bëgg di di ndax ñii ñëw nag bu ñu dikkee ndigal dong la ñuy jëfandikoo ñoom jëfandikoo ñu dégluwuñu keneen baatub sëriñ bi la ñuy déglu te ndam ko bëggee noonu lañ ko fas yéenee defee kon yéen ñi nga xam ne da ngeen faane te yori bagage teel leen a may nu bu nu ñëwee ngeen yombalal nu li ñuy def mu bañ am benn benn eh, jig jaxa loolu daal la sëriñ bi waxoon ni nañ leen ko jottali boo gisee télévision yi ñu woo leen ñu ñëw fi dañoo bëgg rek kenn ku ne tele boo mën a jàpp dégg ci waxtaan wi ak woote bi ñi nga xam ne ñooy njabootu eh, murid yi nag ñëpp la ñu ndax sëñ bi moom ñëpp la fi nekkal murid yëpp la fi nekkal waaye dafa xam ne daa am ndigal loo xam ne lii ne bu jógee kam koy teg ci loxoom mu jiite ko mooy ka nga xam ne wóor na ko ni bu tegee ci loxoom na mu ko bëggee dana ne amee muy maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax mu jiital ko ci ndigal li waaye murit yëpp lañ ci woo ci liggéey bi ndax noogu yéen noo bokk dëkk bi bokk Touba bokk bokk sëriñ bi kon nag kenn ku ne defaru te fas yéene ànd ak ci liggéey ci ni ko sëriñ bi bëggee nag nu ko ni defee loolu la sëriñ bi waxoon ni nañ leen ko jottali ba kenn ku ne xam ni ajjuma ji nu jëm ku yaakaar Cheikh Ibrahima wala ngay murit te tey jëfe ndigalul sëriñ bi nanga nu fekk si Touba ci liggéey bee ca gaar ba bu nu fa jógee am na yeneen liggéey yoo xam ni ña nga fa ci lëkk ba yoo xam ni ni fas nañ ci yéene jublu waaye danoo bëgg bu lii noppee feneen fu ñu joxoñ rek lu jublu foofa da fexe ba mel ni gaar bi ni ko sëriñ bi bëggee mu mel ni lorunu kenn nag xeexunu xuloowunu la nuy def daal mooy jëfandikalul sëriñ bi koo xam ne kii nag ànd nga ci jëfandikalul sëriñ bi da yaakaar naa doo am ak noonu jooyoo ko am sa sa koo xam ne kii nag yow da nga yor sa xalaati bopp ak sa melokaanu bopp ah loolu booy nga abal nga xam ni noonu moom jëfan jëfe ndigal rek moom lañ ñu sant te moom la ñuy def ndax moom lañ fi fekk te fas nañ yéene ci la ñuy nekk ba ban fi bàyyi ko ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp